Ina tabax adduna bo xamne ne du manke dal dina bëgg contane te ken du len agressé adrien watal na len ni suma ma paree li ma fi indi dina ñibisi di nga dem ba bëss di xol sa bop ci seetu lenen ngay gis dul sa xar kanam lepp lo def so ba jant so maa la ko def lu su delu sa tank sama tank sa mbagg sa mbagg leg yow lan nga bëgg kay nak ma xamal la ben awma téméré at de waaye naan naa téeméeri ndaa ku jamono rek bàyyi nga ma xel. yaay dum daal yaay dum. kii Amar mon fils kii sama doom baa ngi noonu.